tey boo déggee lii askan wi nga xam ne ñoo dëkkee ci pegg bi yow nga xam ne yow yaay maire bi dëgg la yaa ngi jéem mais déjà yéen naka ngeen di dundee quiétude bi nga xam ne tey daanaka moo sonal huit askanu Dalifort. wax dëgg yàlla ñiy dëkk aux alentours et BD2 dama leen di massaw man chaque fois dama koy wax parce que li ñu dund métti trop te teguñu ko seen bopp aussi. parce que il faut qu'on convoque l'histoire parce que bd bi li tax mm, essence bi di xeeñ. <laughs> parce que bi ñu defar terre bi parce que moom terre bi ñoo taxaloo. d'accord mooy c'était en deux mille dix-neuf si la amoon benn explosion pour saar yi. Mhm. dafa jaar foofu bi ñu defar defar terre bi mu amoon benn explosion donc seen pipeline yi xam nga essence moo si jëm mooy jógee port pour dem saar. Mhm. donc ce qui fait que après sol bi dafa abîmé wu dafa naan. léegi nag ce qui fekk nawet bu ñëwee bu ndox mi wàccee rek dafay daw dugg si dugg si bassin bi. man bi ma ñëwee j'ai organisé sànq des rencontres indi naa fa ministre à son temps indi naa fa le préfet le gouverneur ba waa SAR ñu convoqué ay réunion waa SAR neew nañ ñëw nañ euh, réparé nañ ko mais ba tey sol bi dafa naan mais bassin yi BD1 BD2 donc la banque mondiale moo ko financé à travers ADM. mooy si projet actuellement projet 2. ñooñu moo ñu permettre ñu def des travaux confortatifs yi nga xam ne yaa ngi koy gis mais ñëpp xam nañ ni donc assainissement donc état da ko dénk benn structure mu nekk ONAS. <laughs> même waa ADM bi ñu utee financement ba def infrastructure yi tout ce qui est entretien xaalis bi banque mondiale la jóge ADM da ko jox ONAS actuellement pas plus tard que aujourd'hui woo naa waa ONAS di leen laaj kañ ñëw ñuw ñëw curé suñu suñu bassin yi. parce que la population souffre. mënuñu xaar. ñoom ren nee nañ bon peut-être am na benn retard si seen procédure de passation de marché ak changement de régime bi ak seen nouveau DG bi ma ne mais la population souffre donc te ñëpp xam nañu gouverner c'est prévoir. Juste. donc on devait anticiper sur beaucoup de choses. Mhm. moo tax tey sama ñaari BD1 BD2 kenn kenn curé gu ko ce qui est anormal parce que mi ngi créer ay conséquences extraordinaires donc y a la prolif prolifération des TIFA. mu siggi mi ngi fa. donc ñu maire yi mënul lu dul faire pression ou bien mettre sans pression si waa ONAS. Mhm. ONAS dimbali ñu mais comme nee na ngi si sans procédure mënoo leen aussi obligé mais li maire bi wax dama koy dëggal. dañuy ñaan aussi état central vraiment ñu venir ñu au secours. Hmm. parce que population bi sonn na ñu ngi dund loo xam ni parce que même nawet bi mi ngi ñëw mais bu ñu kiiréw malgré li ñu def malgré investissement yi ñu def malgré li ñu sonn mais attends bu ñu ko curéwul dafay fatt te bu fattee dafay mën a créer waat yeneen yeneen désagrément yoo xam ne on le souhaite pas vraiment ñu ngi leen di ñaan bu ñuy def benn ñu baral ko mhm. certes tout est urgent mais nawet mi ngi ñëw te ren météo nee na ndox mi dafa naraw bari mhm. donc vraiment il faut ñu ñëw curéel ñu suñu bassin yi population bi seen xel mën a dal au moins parce que Dalifort actuellement exemple la donc bu ñu nangu nag parce que ay erreur yu ndaw investissement bi ñu fa def des milliards donc muy yàqu wala mu naax saay beneen bi itam monsieur le maire bokk na si parce que mu ngi wax deret buy ballee ci diwaanu mais xam nga xam nga yooyu après bi ñu si lañ ko constaté il paraît que xam nga ñoom seen réseau yi dafa am benn réseau bu nekk Sogas bu gars yi détourné woon mu ñëw versé si ko bassin bi donc signal nañ ko ONAS parce que ñoom ñoo yor réseau yi ñoom ñoo yor sa entretien réseau yooyu kenn ñemewu ko laal te amoo autorisation ONAS donc ça interpelle aussi ONAS. nga xam ne ñoom ñoo ko ak gérer population bi constaté nañ ko indi nañ fa seen technicien gis nañ ko. vraiment ñu dimbali si loolu loolu ba ñu retrouver sunu bassin parce que bassin bi ñu ko yor soog a defar. dañu doon gis même de petits poissons mu doon lu extraordinaire mu rafet. ndox kese nekk si ay jën yu ndaw di si nekk donc loolu dafa bokkoon. si lu nekkoon suñu suñu fierté parce que dañ ko branché directement mu dem à la mer géej gi parfois moo doon indi fa jën yi ba bassin bi jàkkaarloog la mairie mais actuellement c' est catastrophique parce que essence bi si nekk kenn mënu si dund. waaw hmm, ah, parce que déjà xet bi rek boo koy noyyi ci alentour bi. c' est ça euh, si dund waxumala ak nag ay jën. donc vraiment donc il faut état jàppale ñu si. mais mais aussi y' a danger ak terre bi. nga gis euh, li nga xam ne moo jëm ci lu yor petrole boobu itam di ball. Euh, maanaam a ça c'est un ah, loolu moo fa nekkoon parce que bi mu explosé aussi ñoom il la fallu que terre bi ñu arrêté ko réparé ko et tout donc buñ ko deful aussi bu subaa mën juraat beneen jëye donc on a interpellé les autorités te que ils sont bien donc informés. Hmm. pour ñu pour venir et ça nous aider. la population la plus proche. mais aussi pour aider ça tous les Sénégalais parce que terre bi ñëpp a siy d'accord euh, d'accord moom nee na peut-être yéen a ngi def ay jéego mais est-ce que yaa ngi def descente ñoom pour expliquer leen ni euh, la nga xam ne tey état moom la war a def ak la nga xam ne tey yow moo la war loolu la nga war a def parce que euh, ñu ci bari dañuy jàpp ni maire moo ko war a def ressortam la yéen la ñuy njëkk a gis langage de vérité bi est-ce que yaa ngi koy tenir ñi nga xam ni itam ñoo di askan wi foofu. waaw ah, sant yàlla loolu dañ sant yàlla tey boo gisee ni mu waxee nii mën a faire la part des choses parce que elle a été conscientisée. parce que wax naa la foofu ñëw naa fa à maintes reprises tenir fa des réunions donc mais nag population parfois du ñàkk ñoo xam ni donc dañuy bëgg a sànni xeer di sànni xeer mais da nga koy accepter comme yow la ko jiital mais ñu bëri xam nañ ni loolu du compétence wu mairie mais aussi mairie warul toog rek ne nekkul sama compétence du ma si jéem population fu ñu yuuxu même bu dul sa compétence da ngaa war di solution te solution ñoom xam nañ ni ñi ngi si hmm. matin matin midi soir